abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tigil kasaladam sidi baram أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام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 لجملا ظاهري وباطني بالطاهر يا ماحيا كبائري بجاهه ولمن إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk ñu bokk yàlla kii seen soppi la ci yàlla Abdul Ahad moo des waat di leen nuyu di leen di leen tatagal di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla boole ñu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 12 euh, mars 2024 mu dëppook fukki fan ak ñaar ci weeru mars wi ñu nekk atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent miladiya isa juddu seydna isa alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla ñaari fan bokkul ci lim ñu fàtte yi kon ñu am tey ñaari fan ci weeru koor wi ñu am tey ñaari fan rafet na ci ñoom waaye ñu am benn fan rafet na ci ñoom duwaawul yow allahuma inni asaluka ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbalan go amalan mutaqabbalan euh, mbokk yi ñaan gi mel ne jaaroon na fi dafa ñaan ne yow buur inni naka man de asaluka danaa la ñaan ilman naafian xam-xam buy jariñ wa risqan tayiban ak wërsëgu teey wa amalan mutaqabbalan ak jëf joo xam ne jëf ju ñu nangu la ilman naafi muy xam-xam bu am njëriñ boobu xam-xam rek mooy xam-xam bu am njëriñ moo lay jëriñ ci àdduna jariñ la àllaaxira waaye xam bu amul jariñ mënu la jariñ ci àdduna mënu laa jariñ àllaaxira xam bi am jariñ nag mooy xam suñu borom subhanahu wa di xam-xam di xam-xam xadis maanaam di kitaab ak sunna ak bépp xam boo xamante ne bii mën na la jëriñ nga soppax ndiku ci sa wàllu adduna ba mën a defar sa adduna mën a defar sa àllaaxira yooyu yëpp ci xam-xam yu am njariñ lay bokk waaye bépp xam-xam boo xam ne dafay réer nit ki munu ko jëriñu ko ci addunaam jëriñu ko alaaxira waaye da koy jëriñ rekk ci mu mën a topp ba kanam mën a naxe mën a jëfe loo xamante ne bii maanaam dëppoo wut ak suñ boroom yi mu yóbbu ko sax du ragal yàlla mu yóbbu ko sax mu ñeme suñ boroom xam-xam boobu yóbbu ko sax mu jàpp na lu nekk sañ na ko mën na koo mën na koo wax wala mën na koo def boobu xam-xam du xam-xam waaye xam-xam la yàlla nañ ci yàlla musal xam-xam bi am njëriñ mooy xam-xam bi lay jëriñ ci sa adduna nga mën cee defar sa adduna waaye mooy xam-xam bi lay jëriñ sa àllaaxira nga mën cee defar sa àllaaxira wa taala waaye mooy xam-xam bi lay xamal sa diine waaye mooy xam-xam bi tax maanaam lépp loo bëgg a soppandiku sa diine maanaam ga man ko yan yàlla may xam-xam boobu muy ilman naafian yan yàlla defal ñu ko waaye wa risqan tayiban ak wërsëgu teey wërsëgu teey nag mooy buñ ko waxee mooy bépp alal boo xam ne bu dagan la bépp alal bu dagan rek wërsëgu teey la waaye lépp loo xam ne dëgganul rek nekkul bu teey moo tax euh, suñu borom subhanahu wa taala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kulloo min tayibaati ma razaqnaakum lekk leen ci linga xam ne maanaam euh, teey na ci wërsëg maanaam li teey ci wërsëg ñu wërsëgal leen ko lekk leen loolu kon dañ ciy dégg ne wépp wërsëg woo jot ca téyit nekkul lu dagan wooy wërsëg nekkul wërsëgu teey kenn waru koo jëfandikoo mu ngoog eh, wax nañ na xam-xam alal nag boo bëggee mu dagan danga koy wute ci nii la yàlla sante amee ko ni la ko yàlla sante soo noppee nga def ci li ci yàlla sant loolu mooy alal ju dagan mooy wërsëg wu dagan yàlla na yàlla defal ñu ko waaye wa amalan mutaqabbalan ak ak ak maanaam jëf joo xam ne ju ñu nangu la innama yataqabbalu llahu min almuttaqin jëf ju nangu nag yàlla nee na ñu ngi nangul ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ca ba muy wax ca haabil ak qaabil ca euh, suratul maida innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla way ragal yàlla yi rekk lay nangul kon nag ciy dégg ne képp koo xam ne raguloo yàlla suñu borom tabaaraka wa du la nangul benn jëf du la nangul benn soppaxndiku ndax lan innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla nee na ñi may ñi may nangul mooy ñi ragal yàlla bu yàlla defee digalee ñu def bu teree ñu bàyyi lépp ñu di ko dëppale kitaab ak sunna teg ko ci shariatu teg ko ci xaqiqatu bu leer ak sariatu bu laab ñii la suñ borom tabaraka wa taala di nangul ku bokk ci ñii rek yàlla nee na du ma la nangul ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqina yal nañu yàlla boole ci min almuttaqina way ragal yàlla yi yal nañu suñ wa taala boole kon ñaan ngaa ngoogu allahuma inni asaluka amalan ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbalan sustu amal al amalul mutaqabbal maanaam jëf joo xam ne suñ borom tabaraka wa taala da ko nangu xam nga bu demee ca suratul xaasiya ci hal ataaka hadiisul xaasiya suñu borom ma fay wax naan baada auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim aamilatun naasiba waaye ànd ak loolu lépp nag tasla naaran xaamiya tusqa min aynin aaniya laysa lahum taamun illa min dariq laa yusminu wala yugni min juu allahu akbar yàlla suñu boroom subhanahu wa taala nee na aamilatun naasiba ëllëg yowmal qiyaam am na ñoo xam ne loolu la leen yàlla di wax aamilatun aka jëfoon naasibatun aka sonnoon ku mënoon a jëf ci àdduna la waaye ku sonnoon ci àdduna la waaye ànd ak loolu lépp nag ànd ak jëf joo jëpp ak coono boobu yëpp tas la naaran xaamiya ma ngay tàkk ca sawara woo xam ne maanaam wu tàng jër jër jër la waliyaasu billah jëf ba sonn sonn ba sonnatoo ànd ak loolu lépp ëllëg ngay tàkk ca sawara aamilatun nasiba tasla naaran xaamiya waaye duñ ca yam tusqa min aynin aaniya ndox ma ñuy naan sax ndox mu tàng jëri jëri jëri jëri jëri jëri lay doon allahu akbar laysa lahum taamun illa min dori seen ñam wa sax ay boppi ñangoor la ñuy lekk ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay garab yu def ay dëkk ñu koy sàq mi mu di leen jam xom-xom moom la lekk garab yi dafi dégg ay boppi ñàngoor ah, ay dereti wan njar moom lañuy ñuy naan yu tàng jër jër jër jër jër jër jër te duñ ko sañ a bañ te duñ ko sañ a bañ bokk yi yal nañu yàlla musal ci loolu bokk yi loolu jar na góor góorlu xool leen ñi dafa kii dafa jëfoon ba sonn jëf na bay bëgg dee sonn bay bëgg dee waaye ànd ak loolu lépp jëriñu ko dara ndax lan bam mu koy def yàlla taxut ndax lan ba mu koy def gëmut yàlla ragalut yàlla ndax lan tooñ na ma sàmba tooñ na ma demba tooñ na ma faatu tooñ na ma kumba bu ëllëgee mbooleem jëfam yooyu yëpp ñu jël ko jox ko ñam ñam daa tooñ ba sax day mujj sax moom du matal ay tooñaangeem ñu jël ca bakkaar yi ñam doon tooñ sëf ko ko xataa yakuna daluuxan ba mu diis gën gën gën gën ak ci bakkaar ñu boole ko bakkaar ya yóbbu ca safara kon aamilatun naasiba tasla naaran xaamiya tusqa min aynin aaniya laysa lahum taamun illa min dariq laa yusminu wala yugni min juu te kat lekk googu ñuy lekk du jëriñ dara ci xiif loo leen jox ñu ne ko tëll ba noppi gën a xiif looleen jox ñu naan ko ba noppi gën a mar waaw ah. laa yuxni min juuin ngoog maanaam lekk ga la muy bëri bëri bëri maanaam jëriñu leen dara ci seen xiif seen xiif ba allahu akbar laa yusminu wala yuxni min juu te du leen suuralit duñ tax du tax ñu suur dañuy lekk di gën di ràgg di gën di yooy di gën di xiif di gën di mar allahu akbar yan yàlla dimbalee boppam mbokk yi mbokk yi yan yàlla dimbalee ñu boppam yan yàlla jéggal ñu yan yàlla yërëm ñu kon mbokk yi ñaan ngaa ngoogu ñu ngi ñëw léegi ci xadis bi xadisul an abi hurayra radiallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam iza jaa ramadaanu futtixat abwaabu aljannati wa xuliqat abwaabu nnaari wa suffidat ash-shayaatiin allahu akbar rawaahu alimaamu muslim bokk jël nañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu jële ci yonent sallallahu alayhi wa sallam nettali ne yonent bi nee na isa jaa bu dikkee ramadaanu weeru koor muy wii ñu nekk futtihat ubbeef abwaabal abwaabul jannati bunt ajjana yi yëpp dañ koy ubbi ajjana bunti ajjana yëpp juróom-ñett la juróom-ñetti bunti yëpp la suñ borom tabaaraka wa taala di ubbi juróom-ñetti ajjana yëpp suñu borom da koy ubbi afal benn bunt du ci waaye wa xuliqat wa xuliqat abwaabu naar suñu borom subhanahu wa daadi di maanaam tëj bunti sawar yi nga xam ne juróom-ñaar lañ allahu akbar euh, bunti sawar yi nga xam ne juróom-ñaar lañ suñ borom da koy tëj ubbi bunti àjjana yi nga xam ne juróom-ñett lañ afal tëj bunti sawara waaye du ca yam wa sufidati shayatin yàlla daa di tënk jéng chaîne mbooleem cheytaan yi allahu akbar hadis bii nag al imam muslim moo ko solo bokk ñu bokk yàlla bokk ñu bokk yàlla weeru koor ñëw na waaye kan lañuy ñuy ubbil bunti àjjana yi kan lañuy ñuy tëjal bunti safara yi mooy ki nga xam ne nangu naa jëfe ndigal li te ndigal li mooy woor weeru koor kan lañuy jëngal seytaaneem kañ lañuy tënkal sayta saytaaneem kan lañ koy seeneel mooy ki nangoo jëfee ndigli suñ borom yi ki nga xam ne dafa itti woo koor soxla woo di ko def nag ko suñ borom sante kooku ubbil nañ ko juróom-ñetti bunti àjjana yëpp tëjal ko juróom-ñaari bunti sawara yëpp waaye tënkal ko seytaaneem bi nekk ak moom ku nekk rek soo góor góorloo ci loolu suñ borom tënkal la seytaane bi nga xam ne mu ngi ànd yow di la yàqal waxtu nekk waaye ko xam na ne moom sa yoon nekkut ca loola maanaam koor sa yoon nekku ca wóoroo sa yoon nekku ca kooku kenn du ko ubbil bunt juróom bunti àjjani kenn du ko tëjal bunti sawar yi kenn du ko jéngal seytaane ndax li ko yàlla sant dafa lànk bañ koo def ndax yàlla daf ñoo waxoon nit ñi faman shahida minkum shahra falyasumhu ku weeru koor fekk ci kaw suuf nga gis ko wala ñu gisal la ko wooral yow nga lànk bañ koo def kon yow bokkoo ci te yàlla dafa ñoo wax nañu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba lil lazina min qablikum laallakum tattaquun ayyaman maadudat waaw maa ko farataal ci yow weeru koor maa ko farataal ci yéen ñëpp nag amul exception kum fekk ci kaw suuf nga seede ko nga ànd ak wér dara jotu la nga mën a woor majeur ànd ak sa xel dofoo hmm? nee na woor ko kon yow soo lànkee bañ koo def yow bokkoo ci ñi ñuy ubbil juróom-ñetti bunti waaye bokkoo ci ñi ñuy tëjal juróom-ñaari bunti sawar yi waaye bokkoo ci ñi ñuy jëngal seytaan yi yow bokkoo ci ndax yow da nga li la yàlla sant danga nga lànk bañ koo def te amoo benn ngànt buy tax nga bañ koo def ngoog bokk ñu bokk yàlla kañ lañ farataal weeru koor weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na eh, wax nañ ne weeru koor ñu ngi ko ñu ngi ko farataal ci eh, ñaareelu gàddaay ga maanaam ñaareelu gàddaay gi ñaareelu atu gàddaay gi laa wax maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa gàddaayee ca ñaareelu at ba ba mu gàddaayee Màkka dem Medina ci ñaareelu at ba maanaam ci leen faratal maanaam weeru koor ci ñaareelu at ba maanaam furida fi sannati assaniyati min al hijriyati ijmaan nag waaw ñu ngi ko faratal ci juróom ñetteelu ci ñaareelu atu gàddaay bi boroom xam xam yépp ci dëppoo ijmaan ñëpp ci dëppoo waaw boroom xam yépp ñoo dëppoo ci ne weeru koor suñu boroom subhanahu wa taala ngi ko farataal ci yonent bi farataal ko ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaareelu atu gàddaay gi waaw fa saama nabi sallallahu alayhi wa sallam tisa ramadanat ijmaan bi woor juróom-ñeenti koor juróom-ñeenti ramadaan ramadanaat yonent bi war na ko tisa ramadanaat ijmaan lii wax jiit it mboolem boroom xam-xam yi ñoo ci dëppoo ijmaal ulama weeru koor ñi ko farataal ci ñaareelu atu gàddaay gi gi ci ñaareelu at ma ci leen ko ci leen farataal weeru koor ñëpp ci dëppoo waaye yonent bi juróom-ñeenti koor la woor juróom-ñeenti at la woor maanaam tis a ramadaan juróom-ñeenti koor la woor ijmaan ngoog ngoog euh, kon nga dégg ci ne kon yonent bi sallallahu woor na juróom-ñeenti koor ca lii ñëpp ci dëppoo kon koor farata ndax lan kutiba ja yàlla moo ne kutiba aleykum siyaam maa ko farataal ci yéen yonent bi farada euh, fi sannati assaniyati min alhijriya ijmaan boroom xam-xam yi ne yàlla mi ngi ko faratal ci ñaareelu euh, gàddaay ga ñaareelu atu gàddaay ga bi yonent bi jógee Màkka dem Madina at bu njëkk ba ca ñaareelu at ba ci leen farataal ci moom koor mu woor juróom-ñeenti koor moom yonent bi juróom-ñeenti koor yooyu mu woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la ëpp lum daa woor ak juróom la ëpp lim mu woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent moo ëpp li woor fanweeri fan moo ko ëpp waaw am na sax ñoo xam ne dañuy wax ne benn yoon la mas a matal ñaari yoon waaye li ëpp ci li gën a màndu daal mooy li ëpp mu daa woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la daa woor waaye fanweer moom lu néew la ko daa woor fanweeri fan lu néew la ko daa woor bu yonent bi sallallahu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lépp lu mu daa woor te loolu ku dem ci teer yi danga ko ci fekk bokkiñ bokk yàlla bokkuñ bokk yàlla koor mooy lan ndax koor moom xiif mar rekk la bay lekk bay naan rekk faqat déedéet koor dëgg dëgg dëgg koor du xiif rekk du bàyyi lekk rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne man lam yadda qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yaddaa taamahu wa sharaaba rawahu al imaamu al buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man lam yadda ku bahul qawla zuur waxi nar waxi caaxaan waxi mbóorant wax loo xam ne su yoon nekku ci jëw ak rambaaj ak xast ak saaga ah, ak wax wax yoo xam ne waroo ko wax wala amala bi ak nga di ko jëfe fa sa déet lillaahi di ñeel yàlla xaajatun benn aajo fi an yadaa ci nga bàyyi ci mu bàyyi fii an yadaa ta ci mu bàyyi taamuhu lekkam ga ñamam wa wa sharaabuhu ak naanam ga allahu akbar yonent bi neen bokk ku woor te baxoo fen waxi fen waxi kàcc waxi nar jëw rambaaj saaga xaste xuloo xeex rayante warante ginnaaw defante lu bon nee na ku baxul lii ci weeru koor su fekkee ne woor nga nee na bàyyi gi nga bàyyi lekk ak naan yàlla amu ci soxla yàlla amu ci soxla moo tax daana wax ne kam min saa'imin laysa min siyaamiha ilal juu wal atash allahu akbar ilal juu wal atash bëri na woor ba ngoon mu dog te amut ca kooram ga lu dut xiif ak mar bëri na ku woor ba weeru koor wa jeex ci amut ca kooram ga lu dut xiif ak mar allahu akbar yan ci yàlla musal ci la waxit ne wa kam min saxarin laysa min qiyaamiha ila saxru wa kam min min qiyaami leyli laysa min qiyaamiha illa saxaru loolu la wa kam min qiyaamil layli bëri na ko taxaw guddi di ko julli di ko naafila ñu ne ko ha mu min qiyaamiha amu ca taxawaayam boobu illa saxaru lu fog foog maanaam bañ a nelaw képp la ci am maanaam bëri na ku naafila weeru koor ba na weeru koor wa amu ci lu ñàkk nelaw ak taxawaay yu metti waaye amu ci lu dul ab xiif ak am mar waliyaasu billah yan ci yàlla lu koy waral woor naa di jëw woor naa di xaste woor naa di sàcc woor naa di mooy yàlla woor naa maanaam di yëddoo woor naa di wax lu sama yoon nekkut woor naa di jëf lu sama yoon nekkut woor naa woor naa waaye lu ma neex ma wax man daal koor gi xiif ak mar képp la lamiñ wóorut bët bi wóorut nopp yi wóorut tànk bi wóorut pëy mi biir bi wóorut ah yonent bi gi nga bàyyi lekk ak naan yàlla amut soxla kon su biir bi wooree tànk yi dañoo war a woor waroo dem fu yàlla di tere loxo yi dañoo war a woor waroo laal lu la yàlla tere bët yi dañoo war a woor waroo xool lu la yàlla tere woor ba noppi di seetaan ay vidéo yoo xam ne doy na waar lu ne lu lañ cee wone woor ba ngoon di diglu loo xamante ne bii diglu kenn waru ko diglu hmm? ku woor sa cër yépp war woor loxo sa juróom-ñaari cër yépp daa war a woor woor du bàyyi lekk rekk ak naan liñ jublu ci koor gi mooy nga ragal yàlla laalakum tattaquuna ngir ngeen ragal yàlla ragal yàlla ba loxo bi du laal laaluwut ragal yàlla ba làmmiñ du wax lu waxuwut ragal yàlla ba yi du xool ragal yàlla ba nopp yi du dégg lu digluwut ragal yàlla ba tànk yi du dem fu mu wërta dem ragal yàlla ba du dugg fu mu wërta dugg waaw ba gën a baax nag mooy nga fexe sax ba tënk sa xel mi du xalaat loo xamante ne bii lu ñaaw la kooku nag mooy sow mu xaasutul xaas ñooñu ñëpp agguñu fa waaye yow nga fexe ba sa cër yi nga téye ko soo munta téye xel mi sax ba du xalaat lu ñaaw yow fexeel ba téye maanaam sa sa sa sa sa cër yi nga am koor yàlla fay la ndax koor ragal yàlla rekk lañ ci jëlee soo wooree ci ragaloo yàlla amul njëriñ moo tax yonent bi wax na ko man lam yaddaq xawla zuur wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun fii an yaddaa taamuhu wa sharaaba wa sharaaba hadis bi al imam Buxaari moo ko solo bokki waaye yontu saa salaam it nit ki ci biir weeru koor wi nga fàtte lekk wala nga fàtte naan wala fi di ko wax juubu juubu lan mooy atteeb ku juubu ci weeru koor yonent wax ne ci ab xadis wax ne isa nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmuhu fa innama atamahu llahu wa saqaahu muttafaqun alayhi hadis bi Buxaari génn Muslim génn na ko yonent ku fàtte ci biir weeru koor lekk wala nga naan matalal sa koor yàlla moo la leel yàlla moo la nàndal waaw te wax nañ ne sax bis boobu doo ko fay am na ñu wax loolu doo ko fay ndax yonent bi saa sallam loolu la wax mattalal sa koor waaw ndax yàlla moo la leel moo la nàndal ginnaaw hadis bii nag tegu ci ne Euh, wali yaqdi na fay déedéet amu ci waaye la wax rek mooy ku fàtte ci biir weeru koor naan wala nga lekk nee na continuer sa koor matal yàlla la leel moo la nàndal kon bu la neexee doo fay ngoog fa ñuy tegtaloo mooy ci ay alquran bi ñu koy tegtaloo mooy rabbana la tuaqisna in nasina aw axtaxna foofu lañ ko tegtaloo rabbana la tuaqisna in nasina aw axtaxna yow yàlla bu ñu jàpp ci buñ fàttee walla ñu juum buñ fàttee baa ñu juum bu ñu ci jàpp bu ñu ci bindal bàkkaar buñ ci am bàkkaar bu ci mbugal moo tax yonent bi ne man nasiya gis nga in nasiina mu indi man nasiya ku fàtte lekk wala nga naan continuer sa koor yàlla moo la leel moo la nàndal waaye bul bul mel ni mbayoon mbay nii de ak saaxu saaxu yeeg jaxate jaxate yeeg silla silla yi lekkati ceeb yooyu mu neex la rek nga tey naan ba man ni ne dama juub wala nga lekk ba reg ne dama juub waxuñ loolu loolu moom ku ko def ci bi ci gu weeru koor te yaa tey sa koor ga yàqu na te wa insaama dëhra boo wooroon diiru jamono bis boobu moom mënu koo fay donte nag da nga ko fay waaye boo wooroon bis boobu diiru jamono adduna bépp nga doon nga di ko woor bis boobu nga tey dokk mënu koo fay allahu akbar kon kon gaay yi bokk ñu yàlla nañ góorgóorlu weer yàggut weer yàggut léegi tey mu jeex mbay mbay yi saaxu saaxu yi silla silla yi jaxate jaxate ndaw ko ndaa yi tunkara tunkara yi waaye waay waay muñ leen rek muñ leen weer yàggut jërë ngeen jëf mbokk yi teg leen fii seen lox ba suba ci waxtu yi ki doon def yéen waxtaan wi seen soppale ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullahu li wa lakum wa saa'iril mu'minin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bàyyi leen xaq jërë ngeen jëf abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun la